tey tamit ki ma doon laaj ba booy na ci loolu mu ne ma ak li ñuy wax ne affaire létt loolu tamit dafa xaraam mi ay maam ku yokk ak kañ ko yokk maa nag loolu su ngeen demee ci téere dañuy wax ne yonent bi nee na kooku dañ koo rëbb la ñuy wax maa leen nag loolu maanaam loolu moom ñëwul ci alxuraan yàlla soo demee ci surat 4 ni suratu nisaa yi aaya 119 aaya boobu ñëw aaya boobu sax ñëw nañ ci ci biir aaya ba yàlla li mu wax ne bokk na ci li mu wax mu ne seytaane mooy diggal nit ñi ñuy soppi mbindum yàlla li mu wax ne wala amurannahum fala yugayyirunna xalqallah may leen soppi mbindum yàlla nag bokkut ak létt xam nga létt loolu loolu sa bëri wax dëgg yàlla na ñu ma koy laaj am na ay jigéen sax ñu may laaj lu mel noonu may soppi mbindum yàlla létt bokku ci ndax létt par exemple même su fekkoon ne mèche la sax ci boppam da koy jokk ci karaw gi soo paree da koy dindi yàlla waxul ku jokk ak ka ko jokkal da ne soppi mbindum yàlla seytaane mooy ñu digal ñuy soppi mbindum yàlla soppi mbindum yàlla par exemple mooy altérer altérer par exemple joxe nañ ci exemple ci am na benn vidéo mi vidéo 46 yaakaar naa euh, ñuy wax ci li ñuy wax circoncision mooy affaire xaraf nga xam na mu nekk lu garaaw xam nga gars damay wax ne seytaane ci boppam moo fort. ci ni muy doxalee ay mbiram da ngay gis ne gars yi dañuy ñëw di wax ci ay ay ay détails yoo xam ne loolu loolu yàlla sax lu ca wax te ñoom suñuy ñëw di wax ci détails yooyu ñu ngi dëgg ci loo xam ne yàlla da koo wax mu leer nañ ci téere bi ñoom dañuy ñëw di wax ci loo xam ne yàlla waxu ca te ñoom ñu ngi dëgg ci loo xam ne yàlla da caa wax comme li may wax léegi ca kii lijjanti ab soirée wala kii musique xaalisu musique nangam te yow yaa ngi nekk ci loo xam ne yàlla nee na ñi ci nekk ay kat lañ nga xam ne warul ci ñoom ñuy dundal ay jàkkaay yàlla ku dem ci vidéo buñ mujjee def da ko ci fekk warul ci ñoom sax ñuy dem ca Kaaba la ndax yàlla dana ay sobe lañ yàlla wax lii mu nekk lu leer ci alquran ku dem ci suurat 9 aaya 17 da nga ko fekk ak tamit surat 9 aaya 28 li wax ci julli surat 9 aaya 17 lu mu wax ci li mu wax ci maam Kaaba ga surat 9 aaya 28 ku fa dem da ko ko fekk. yii nag mu nekk ay mbir yoo xam yàlla da koy wax mu leer nañ dañ ko fay mu dem di lijjanti ay détails naan yàlla rëbb na koo xam ne day yokk ak koy yokkal loolu du waxu yàlla loolu yàlla waxu ko yàlla li wax mooy seytaane mooy digal nit ñi ñuy soppi mbindum yàlla bi gën a garaaw mooy wàllu xaraf yàlla bind nit yàlla moo wax wa sawwarakum fa ahsana suwarakum yàlla moo ñu bind melal ñu rafetal suñu melokaan melokaan woowu nekk melokaan yi nga xam ne moo ko soob comme ni ñu ko waxee ne yaa ayyuhal insaanu ma garraka bi rabbikal karimi allazi xalaqaka fa sawwaaka fa abdalaka fi ayi suratin maa shaa rakkabaka yàlla bind ñu ci melowu ko soob ñun ñu ñëw ne waaw nit ki sax pour mu sell faaw dañ ko war a maa dañ ko war a sellal xaw dañ ko war a sellal lañ koy wax suñ koy sellal liñ koy sellalee mooy dañuy dem dagg prépuce bi loo xam ne ci yàlla mbind mu rafet ba ñu bindee loolu sax ku dem ci vidéo bi ñuy wax ci wàllu circoncision vidéo 46 yaatal nañ ca indi nañ ci. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala mbokk groupe bi asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di ñëw di leeral ci. vidéo bi rek ci di Mbacke saxo mu ci wax ay wax yu reelu comme habitam rek moom jubluwaayam mooy mab lépp loo xam ni mbiri lislaam la dal di créer yoo xam ne lépp ci moom lay démarrer moo tax lépp lu mu fekk dana leen baaxul dina jéem a ut lay jéem a ut lay jéem a ut lay ba lii baaxul tey mu ñëw wax ci ñaari mbir muy Yok yokku mees mu ne dara newu ca mu ne e, xarafal muy njong mu ne wérul ci lislaam soppi mbindu yàlla la soppi mbindu yàlla la ñu ñëw leeral nag ci waxam yu reelu yooyu ndeysaan bu boobaa nit ñi danañ xam ni waa ji demeewut diine xel lay demee wallahi xel lay demee demeewut diine ndax la mu layee mu ne nit ñi lañuy layee ni soppi soppi soppi mbindu yàlla jokk ay meese gi demee ni ko noonu aaya bi yàlla wax ni fala yuxayirunna xalqa allah te dañu soppi mbindug yàlla mu ne soppi mbindug yàlla moom mooy njong kon nee na képp ku xaraf da soppi mbindu yàlla kon ci dégginu Mbàkke Saaxo mooy xaraf dafa xaram waa ji nag yaakaar naa ni mbiram dana leer mbiram dana leer yi fa mu jëm dana leer nañ incha allah mu ne nag amul fenn ku mën a indi fu yàlla waxee ni xaraf te boo leen laajee fu ñuy la ñuy fa fu yàlla wax ci alxuraanu karim mel ni yàlla dafa wàccee aaya ni julli ñu topp leen alxuraan bu leen topp leneen lu alxuraanu karim amul benn aay bu ko yàlla wax laaj naa leen ko ba tàyyi ni indi leen ma aaya bi بن لا اندي موي يالا نينا اتبعوا ما انزل اليكم <laughs> ما انزل ما القران الكريم سنياك ديغ لوخا لا ما انزل موي لب يالا واتيه ليرال نا في اي مير يو خامني يالا كوف منو كو سي الكريم لو خامني يونت بي ديفون نكو موك صحابه يي te bam koy def benn nas wàcc ci ci alquran benn mbind te après yàlla wàccee na alquran koofi mee loolu ndigalam léegi ma laaj leen ñoom Mbàkke Saaxo ñamu àndal loolu fan la koy dem jëlee woon bu dee alxuraan kese lañ yàlla toppaloo yoon fan la jëlee woon loolu ba topp ko ndax da ngaa yoon moo ko créé pare yàlla ñoo leen ànd naa ci subhanallah wala yàlla moo ko wax yoon yàlla Muhammad ci beneen forme bu alxuraanu karim ñu ngi lay déglu incha allah mosoo indi réponse da ngay waaf indi naa la exemple ci debi l'islam bi yalla aramale won sey ka soxna guddi wer koor te ñewu ci alquran waye nak joxe ndigal gi yalla inni nako ci alquran wan ni moko tere won kon loolu di fan la ko jëlee woon jox la fenku ba doo génne ben ay bi yalla ko jublu maka. sangam avant makka bala mako delo makka waye bi yalla diko ko makka confirmé ci ay ni mo joxon fenku bobu le kon fan la ko bi xana jofe woon ndigal li du alxaadu karim de kon boo nee alxaad kese la yàlla toppaloo fooy dugal loolu wax naa ne nii suñu borom nee na waa badar is yaidukum allahu ihda taifatayn bi yàllay dig yàlla muy fàttali après badar neen fàttaliku leen ba ma leen di dig ci ñaari kuréel yooyu benn ngeen gañ a benn ngeen ngeen jël caravane ba génn benn aay boo xam ni balaa badar yàlla digoon na julli ñu loolu badar daa passé yàlla ni fàttali leen ba ma leen ko doon dikk kon fan la yonent bi jotoon information ba ne yàlla digg na leen leen nangam du alxuraanu karim ba julli ñi keroog ba ñu jàkkaarloog yéeféer lu ñu wax haza ma waadana allahu wa rasul lii de mooy lii yàlla diggoon ak yonent bi génneel ma ci alxuraan fenn fa la yàlla diggoon loola kon fan lañ jotoon information ba yonent bu wax leen ko ne yàlla digg na leen nangam ba biñ ko gisee ñu lii lañ yàlla diggoon ak yonent bi du alxuraanu karim kon boo nee alxuraan kese la yàlla toppaloo wax dëgg sa xaas bopp rek ngay wax mënuloo ko amal argument man nga cee nax ñoo xam ne nag jànguñu kon loolu buñ koy indi du jeex du xaj ba ci bay atul ridwaan doo génnee benn benn benn benn aaya bu yàlla wax ne yonte bi yonte bi jaayanteel waaye bi yonte bi jaayante ba pare yàlla koo fi may jaayante boobu moom ndigalam la inna allazina yubayi'unaka innama yubayi'una allah yadullahi fawqa aydihim ñi jaayante yoon ne la woon yàlla lañ jaayanteel ndax loxo yàlla ngi seen kaw loxo yàlla lañ jaayanteel ko yàlla joxe ndigal li genn benn aaya bu yàlla waxee yent bi jaayanteel kon yent bi fan la jote woon ndigali ba ne saxaaba yi dañ jaayante du alxaanu karim kon boo ne alxaan kese yàlla toppaloo kon da nga kon da nga sosal yoon daal ma ne kon da nga ne yonte bi kon sosal na yàlla loo xam ni yàlla waxu ko wala da ko sosal ba pare yàlla tourné waat dina sama ndigal la kon Mbacke sa xaasu bopp rek ngay wax waxoo diine dinañ ñëw nag leeral allah ba nga xam ni dugg sa propre pièce bi nga dugg ndax nee nga ku xaraf da nga soppi mbindu yàlla nga yàlla ne wala xad xalaqna insana fi ahsani taqwim dama bind do aadama ci melokaan bi nga rafet nga jappé ni melokaan bi rafet moy kon boko ko moy wañi nga lola té li nga xamni dug nga sa propre pièce bobu ngay nga xamni ne xel ngay euh ben mbàkke saxo da nga ni xaraf mom moy soppi mbind yalla ndax ni yalla bindé doomu bi kon bo ci wañé moy soppi nga mbind yalla fala yuxayiranna xalqa allah xamoo lan mooy tax yiir moo tax ma ne Mbacké Sakho demal nga jàngi tax yiir mooy lan soppi mooy lan soppi mooy jëlee fa lii indi leneen ndax kuy ku ñu xarafal dañ faa jëlee lañ fa jëlee dem indi leen kole ko fa kon xamoo tax yiir mooy soppi lii moo fi nekkoon nga jëlee ko fa indi leneen yàlla wax na ko fa baddala allazina zalamu gayra allazi qiila lahum mune ñi nga xam ne tooñoon nañ yàlla de mooy waa israël bi ñu waxee bi ngeen duggoo duggee ci dëkk bi wax leen nangam yàlla ma dañoo soppi li ñu waxoon ñu li leen waxoon fu ñu wax ko ñu wax leneen lu dul loola kon loolu mooy tax yéen fa xayyara allazina fa baddala allazina zalamu xawlan xayra allazi xiila lahum beneen buñ leen waxoon kon taxyir mooy nga jëlee fi li indi leneen lu dul loola ndax xarafal moom da ngay jëlee la nga dagg ca moom indi leneen lu dul loola la fa nekkoon moo fa nekkoon ak moom kon mbuus moomu nga dagg kon xamoo lay tax yéen Macky Sall ko déggoo lu ko suñu borom waxaat ni euh, fa in talaqaha fala tahillu lahu min baadi hatta tankiha zawjan gayrahu nit ki ba fasee soxnaam trois fois mootu koo dagan lu dul ndox yi daw si dafa seeg beneen góor bu dul moom gis nga loolu mooy tax yiir keneen ku dul moom ba pare kon tax yiir mooy nga jëlee fi li indi leneen lu ko remplacé loolu mooy tax yiir kon boo nee taxiir mooy kon ay nga jël ay ba firee ko loolu wax dëgg yàlla mooy Mbàkke Sakho ci xel ngay demee jàngoo pare nga bëgg nga bëgg da ngay firi kon ci luxa taxiir mooy lan ihdaasu say lam yakun xablahu sos sos ci mbir mi benn mbir boo xam ni nekk fa woon nga sos ci mbir benn mbir boo xam ne nekk fa woon loolu mooy ihdaasu say in lam yakun xablahu ولا غني انتقال شيء من حالة إلى حالة أخرى بير مي جوغي سي بي ديم ني سوفتي كو بنين فاصون بو خامي فاصون لا لا نيوخ تغيير فلا يغيرن خلق الله يوم غني ماي خرفال لو سوف سوف ميد يالا لا كون ماك تاخ واخ دغا دمال غا جانغي دغا أه، بن ماك ساخو da nga ni xaraf moom mooy soppi mbindu yàlla ndax ni yàlla bindee doomu aadama bi kon boo ca wàññee mooy soppi nga mbindu yàlla fala yuxayiranna xalqallah xamoo la mooy taxyir moo tax ma ni Mbacké Sakho demal nga jàngi taxyir mooy lan soppi mooy lan soppi mooy jëlee fa lii indi leneen ndax ku kuy ku ñu xarafal dañ faa jëlee lañ fa jëlee dem indi leen kole ko fa kon xamoo taxyir mooy soppi lii moo fi nekkoon nga jëlee ko fa indi leneen yàlla wax na ko fa baddala allazina zalamu gayra allazi qiila lahum mu ne ñi nga xam ne tooñoon na yalla de mooy waa banu israil bi ñu waxee bi ngeen duggee duggee ci dëkk bi wax leen nangam yàlla mu ne dañoo soppi li ñu waxoon ñu li ñu leen waxoon fa ñu wax ko ñu wax leneen lu dul loola kon loolu mooy taxyir fa gayra allazina fa baddala allazina zalamu qawlan gayra allazi qiila lahum beneen buñ leen waxoon kon taxiyir mooy nga jëlee fi lii indi leneen lu dul loola ndax xarafal moom da ngay jëlee la nga dagg ca moom indi leneen lu dul loola la fa nekkoon moo fa nekkoon nga dagg kon xamoo lay taxiyir Macky Sall lu ko suñu borom waxaat ni fa in talaqaha fala tahillu lahu min baadi hatta tankiha zawjan gayrahu niki ki bu fasee soxnam trois fois mootu koo dagan lu dul ndox yi ndaw si dafa seeg beneen góor bu dul moom gis nga loolu mooy taxyir keneen ku dul moom ba pare kon taxyir mooy nga jëlee fi lii indi leneen lu ko remplace loolu mooy taxyir kon boo nee taxyir mooy ay jël ay ba firee ko loolu wax dëgg yàlla mooy Mbàkke Saako si xel ngay demee jàngoo pare nga bëgg nga bëgg da ngay kon ci luxa taxyir mooy lan ihdaasu say لم يكن قبله sos sos ci mbir mi benn mbir boo xam ne nekk fa nga sof ci mbir benn mbir boo xam ne nekk fa woon loolu mooy ihdaasu sayin lam yakun xablahu wala nga ni intiqaalu sayi min xaalatin ila xaalatin oxra mbir mi jóge ci façon bii dem ñu soppi ko beneen façon boo xam ne façon boobu nekk fa woon loolu la ñuy wax taxyir فلا يغيرن خلق الله يوم غني ما يخرفال لو سوب سوب مبيد يالا لا كون ماك ساخ واخ دغال دمال جانغي داغا جانغول خرف بوب مو واخ والله العظيم كيم تاند جير فين وني يونت يالا محمد يالا كو يوني يونت بام واخي ني بوك نا سي جوروم ييغا خامي فطره لا نغم يالا لا اك لاب لا اك سيت لا من بوك نا شيخ الخطان موي خرف بوكو نتي وات ساي كراو نق بوكو نتي واني ساي نانو مو ساي مصاص بوكو نتي للي ساي وي بوكو نتي بودي ساي كراو بوخاتان مي جوروم يي تي ليب ميدسين دافا كوس ملي يي دوما ادم ديكو باي تي يرام موي ساخ داي سبب اي جانغورو داي سبب اي جانغورو الله اكبر ميدسين تاي دافا كوس بلولو موي دغال ني محمد صلى الله عليه وسلم يالا كو يوني te muy xadis bu ñu ñëw ci wàllu xaraf li ci médecin yi li ci médecin yi wax boo demee ci benn docteur bu ñuy wax Mouhamad Ali Baar mi ngi Angleterre mi ngi jàngale ci faculté yi foofu ca Angleterre mu bind benn kitaab mu tudd mu tuddee ko alxataan mooy njong xaraf mu ciy wax njëriñ yi nga xam ni xaraf am na ko ak ki xaraful lor yi nga xam ni ma nga ca mu ne bokk na ci njëriñ yi nga xam ni xaraf am na ko rawatina xale bu juddoo premier weer wa ñu xaraf ko xarafal ko mu ne kooku dana aar xale bi ci feebar yu bari dana ko jox ay wér gi yaram yoo xam ne ci dundam sabab boobu moo ko waral mi ngi ci téeréem boobu mu ne sabab boobu moo ko waral mu ne bokk na ci da koy aar ci jàngaro boo xam ni awra buy buy buy tàng mooy tuurukaayu ndox bi di tàng feebar boobu da ko ci da ko ciy dimbali ndax mu ne loolu ñuy dagg ci bu ñuy xarafal nit loolu dafay ëmb sobe dafay ëmbaale restant gaanuwaay yi bu boobaa dafay jur ay jàngaro yoo xam ni dafay sabab feebar ci nit ki mu ne bu ñu teelee dindi loolu day waral xale bi dafay am ay wér-gi-yaram yoo xam ne dana ko jural ci dundam médecin bi wax loolu de mu bind livre boo xam ni dañ koo traduit ci langue yu nga xam ne lii xam-xam la di waxi caaxaan mu ne dana ko indil ay feebar awra buy tàng jër ak tamit bopp awraam di faral di tàng rawat ne fi nga xam ni fala gaanuwaay ci woo bi gaanuwaay bi jaar mu ne dana ko muccal ci feebar yooyee bu fekkee xale bi xaraf na rawat na mu teel a xaraf mu ne waaye bu toogee diir bu yàgg yàgg xaraful dana ko jóg a jural ay feebar yoo xam ni mën na ko gàllankoor ci dundam mu ne feebar yooyu nag ba ca gën a garaaw mooy canceru awra canceru awra mu ne awra góor dafay am cancer mu ne bu xale bi teelulu xaraf ñu dindi loola mu ne bu yàggee mën na ko jural canceru awra mune deuxième bi mune place bi muy touré ndox mune ay gëstu ci walu médecine saxal nañ ni xale bi bu fekkee ni xaraful dana gàllankoor gàllankoor yu rëy ay takk-takk ay métit ci fa muy touré ndox yu bare bare bare yoo xam ne da koy gàllankoor ci dundam mu ne gëstu ci wàllu médecine tamit saxal na ni 95 pour cent ci xale yi nga xam ni xarafuñu dañuy am feebar boobu le quatre vingt quinze pour cent mu ne waaye buñ jëlee xale yi nga xam ne xaraf nañu mu ne téeméer boo jël cinq pour cent da nga ko ci am allahu akbar mu ne téeméer boo jël cinq pour cent da nga ko ci am docteur bay wax ni de bind ci livre bu rëy mu ne xale yi nga xam ne xarafuñu quatre vingt quinze pour cent ci xale yooyu dañuy am feebar wàllu awra yooyu nga xam ni loo ñàkk dagg ci aro bi xaraf bi mu ne takk-takk buy juddu ci loola feebar yoogu tiwo mii tuuree ndox day am feebar la wër mbuus moomu day am feebar mu ne quatre-vingt-quinze pour cent ci xale yi dañ koy am waaye ñi nga xam ni xaraf nañu nag dañ ci mucc ba cinq pour cent da ñoo ko ci am allahu akbar kon sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax moom médecin boobu mu bind mu ne xaraf dafay aar xale bi ci canceru awra mu ne gëstu yi wala nañu canceru awra xaw tuut doo ko gis sax ci xale yi nga xam ni xaraf nañu xale yi nga xam xaraf nañu xaw tuut doo gis ñoom cancer dafa raar doo gis ñoom canceru awra mu ne moo tax mu ne waaye walees nañ ñi nga xam ni xarafuñu mu ne def nañ gëstu ci États-Unis mu ne ñinga xamne xam ne am nañu canceru awra bo jele 100000 personnes yu ne dañ ci génné 22 personnes yo xam ne am nañ canceru awra ci ñi ci nga xam ci ñi nga xam xarafu ñu mu ne 100000 personnes yo jël ci ñi nga xam ne ci étage ñi nga xam ni ñu di nga génne ci ñoom 22 personnes yo xam ni am nañ cancer awra waaye boo jëlee cent mille personnes yoo xam ni xaraf nañu xaw tut doo génne si ñoom kenn koo xam ne am am na cancer awra doo ko ci génne mooy lan mu ne sabab bi waral mooy aw mooy xaraf boobay waral loolu mu ne te li gën a not nag ci population États-Unis ñëpp dañuy xaraf ñëpp ñoom dañuy xaraf mu ne moo tax chaque at li ñuy enregistré ci ñi nga xam ni góor yi nga xam ni am nañ cancer awra chaque at day tollok 750 personnes kasse jëm 1000 mais ndax lan lu tax mu néew noonu mu ne ndax li ci ëpp ci population bi dañuy xarax moo tax te xam nga ni population États-Unis romb nañ 300 millions yi dem ñett téeméeri millions teg la lanu mu ne chaque at li ñuy enregistré ci góor yi nga xam ni am nañu cancer awra boo jëlee cent mille personnes yu ne 22 dañ ko ci am te xam nga ne cancer doy war la ndax lan si ñi nga xam ni xarafuñu waaye boo jëlee ñi nga xam ni xaraf nañu cent mille yoo jël doo ko tas bi gis ko ko ci am kon lu waral loolu mooy xaraf gi ñu xaraf kon rasulullah sallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon suñu borom subhanahu wa taala lim ñu bëggal mooy jàmm moo tax mu digal ñu loolu jaare ko ci yoon ci yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam ab waaju xamul dara ñoo fi nan day day weddeeg ay ku def soppi nga mbindu yàlla mu ne nag d'accord ba tey may wax ci téeréem boobu mu ne rawat na nag feebar yi nga xam ne ci wàllu sëy lay jóge mu ne ñi ci ëpp di mucc mooy ñi nga xam ni xaraf nañu waaye góor yi nga xam ni xarafuñu dañuy am mbuus boobu nga xam ni dafay garde ay jàngoro dafay sababal ay jàngoro mooy ñi ci ëpp ci ñoom dañuy faral di gàllankoor ay feebaru sëy mu ne waaye néew na lool ci ñi nga xam ni xaraf nañu mu leen dal mu ne tamit soxna ki nga xam ni dafa xaraf kooku li ci ëpp day mucc ci canceru bututu njurukaay mu wuuteeg soxna ki nga xam ni xaraful li ci ëpp day am sensu am canceru bututu njurukaay mu ne wax ma la xaraf muccal nit ki nga xam ni moom daa xaraf de waaye soxnaam sax da koy muccal moom ci feebaru canceru bututu njurukaay mu ne waaye soxna ki nga xam ni xaraful docteur bay wax de mu ne kooku day am mille sensu am cancer bututu njurukaay kon nag xam nga ni santaane yonent yàlla muhammad boobu mu jëlee ci borom bi lu rëy la tey dem na ba jamono dëggal loola moo tax ku weddi waxu yonent yàlla muhammad jéem a weddi jamono koy dëggal allahu akbar moo tax benn professeur boo xam ni mi ngi tudd Wiswil américain la di yëngu ci wàllu médecine bind ci benn téere 1991 di wax ci njëriñ yi nga xam ni xaraf am na ko ci wàllu wér-gi-yaram ak lu muy jëriñ doomu aadama bi ak ñàkk xaraf lor yi nga xam ni mën na ko indil doomu aadama moo tax lislaam diine fitra la mooy diine gu laab la diine gu set la diine ngëm yàlla la diine diine gu wér-gi-yaram la kon nañu ñëw leeral ci li mu wax ci wàllu jokk mais dara new ci aaye be yàlla fa la yughayyiranna xalqa allah mune ne xaraf la ay yu demee lo loolu yaakaar leral nañ ci nga xamni mom xamu dara ci borom lam wax ci aaya bobu la seytaane mo wax lola fala udillannahum dina len sank wala umanniyannahum na len mébét lo ay mébét caaxaan yu deug wala amurannahum dina len digal fay batikunna faybattikunna azaanal an'aam dinañu bënn di xar sa nopp jur waa kon xanaa mbàkke saaxo moom jigéen ji nga xam ni bën na noppam def ci jaara kon xanaa soppi na mbindu yàlla yàlla bu mu ko bind amulum bënn waxal loolu kon bismillah yokk ci yokk ko ci mbàkke saaxo mu ne wala amurannahum dinaa leen digal fala yuxayiranna xalqa allah dinañ soppi mbindug yàlla lan mooy soppi mbindug yàlla yàlla bind na la nga am say wee naturel nga dem uti yeneen wee poosé ko ci wee yoo xam ni day nuróog wee yàlla bind sa du moom mooy renforcé ngal te yaram loo xam ni yàlla bindee wala sa loola loolu mooy fa la yuxayironn xalqallah indi nga leneen soppi ko ca la nga xam moom la yàlla bindoon yàlla may na la karaw muy karaw naturel nga dem uti ay yeneen karaw yoo xam ni du la yàlla bind woon nga yokk sa karaw mooy soppi nga yokk nga dugal nga sa yaram loo xam ne mu nduróog la yàlla bind nekkul moom loolu mooy fa la yu xayrun na xalq allah soppi nga yàlla bind la nga nekk ko ñuul nga dem jël beneen diw diwoo ko mu xolli sa yaram ba joxaale beneen der boo xam ne nekkul der bi la yàlla bindoon kooku mooy soppi na mbindug yàlla yàlla may la nga am ay xef nga dem jël ay yeneen xef yu nduro xef poosé ko muy nduroog yi bàlla bint nekkul moom mooy soppi nga dugal na ci la xef yàlla joxoon leneen loo xam ni du yàlla moo la ko joxoon kon lii may fala yu xayrun na xalqallah kon yokk mees yàlla moo ñu wax ci alquran dafa haram ndax da nga sopp mbindug yàlla ndax karaw gi da yàlla bi damay ma natal mais da nga ni déedéet karaw gi doyul da nga dem jël yeneen yoo xam ni da ko yàlla bindoon nga yokk ko ca yooyu mooy soppi nga na la ko yàlla bindee woon nga yokk ci leen nga indi leen loo xam ne bokku ca nga yokk ca loolu mooy fale yugayyirunna xalqallah kon yonente bi saa sallam bu ne yàlla rëbb na kay yokk ak ak koy yokkal kon aaya alquran bu leer nañ la ko firme aaya alquran bu leer nañ la ko firme waaye nag comme Mbacke Sakho dafa am habitude moom lépp lu mu fekk la bëgg a weddi ak nu mu ko mën a ràbbee nag ci xelam weddi dina ko def waaye nag argument argument xel lay demee man a sax do muy suppu jarañ kon Mbacke Sakho dégg naa ci vidéo bi mu ne ñoom kay ñoom li ñu war a xool mooy li li mooy mooy li yàlla wax mu leen nañ te ñu koy def muy bokkaale bokkaale bi li Mbacke Sakho jublu ci bokkaale bi mooy ku topp njàngale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ni julli leen yow nga xool ni yonent bi doon jullee nga jullee noonu nee na bokkaale nga yàlla ni woor leen nga xool ne yonent bi doon wooree nga wooree noonu mu ne bokkaale nga. yàlla ne aj leen màkk umra leen nga xool ne yonent bi ajee yonent bi umra nga def nga defee ko noonu mën a bokkaale nga te moom mënu mënu ba ilaa yomi xeama du jàng mën na jàng lu ñu ajee umra ci alxuraanu karim léegi aj fooy démarré fooy yem umra fooy démarré fooy yem aj boo demee looy def umra boo demee looy def boo demee arafa loo fay def masal yi xaram loo fay def ñaata yoon ngay tawaaf ñaata ngay daw safa ak marwa mënu ci wax leen alxuraan mënu ci wax leen moo da koy tudd jàll léegi nag nee na képp koo xam ne jël nga naka yonent bi jàngalee woon nee na bokkaale nga yàlla te yàlla ni wa man yusaqi rasula min baadi ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi xayra sabili almuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa saat masira képp ku wuut ak yonent bi mooy yonent bi defee nii nga defee neen nuul noonu waaye bàkkees laa ko nee nag boo defee na ko yonent bi defee woon mooy da ngaa bokkaale yàlla léegi nag nee na boo bokkaale wu yàlla mooy nan mooy nga defee ko na ko bàkkees laa ko defee mooy mbàkke saako moom mooy jël ay aaya dagale ko na mu ko soobee moom yàlla sant ko de amo ben ay bu yàlla jël ay bi jël ay bi nga boole ko nga julli mais moom Mbàkke Saaxo moy composé na ko nexé mom ay ayam salak sana julli jàngal ni julé len ni néna na ku jullee leen moom bokkaale woo yàlla waaye ku julé na yent bi julli mom bokalé nga yàlla lii mooy pass pasu Mbàkke Saaxo mom yàlla yónniwu wuko yàlla santul kenn mu topp Mbàkke Saaxo yàlla garanti wul kenn Mbàkke Saaxo du jum yent bi yalla ko yónni yàlla moo garanti du juum yàlla moo wax nañ ko topp yàlla waxul topp leen risaala gi mais topp leen rasul gi la wax Macky Sakho ne déedéet oo topp rasul gi risaala gi la ñuy topp atiu allah wa atiu rasul la yàlla wax yàlla topp leen yàlla topp leen yonte bi yàlla waxul topp leen yàlla topp leen risaala gi Macky Sakho ne déedéet topp leen yàlla topp leen risaala gi mu juyoog alquranu karim kon yàlla xam na yi tax mu ne wa atiu rasula topp leen yonte bi mooy risaala gi mi ngi fi waaye nag kan moo lay wan nañu appliqué risaala bi mooy rasul bi yonte yàlla Muhammad Macky Sakho ne déedéet demal nga débrouiller sa bopp waaye boo débrouiller sa bopp est ce que la nga débrouiller nan la koy jëfee woon wóoru la boo ca wuuteeg moom lan la si yàlla wax yàlla ne képp ku wuuteeg yonent bi mu jaar beneen yoon boo xam ne julli ñu jaaruñ noonu dinaa ko féetale fa mu bëgg a féetale te dinaa ko soob jahannam yàlla jël musal kon Mbàkke Saaxo foofu la jëme gars loolu lañ yéene kon li wér ba wér mooy xaraf suñu borom moo ko digle jaare ko ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ci diine yu njëkk ya boo demee ci diine Muusa ca Ibrahima alayhi salaam dañ doon xaraf demal ci yahud yi ñoom ñëpp dañuy xaraf nga xam ne santaane borom bi subhanahu wa taala la muy njëriñ lu rëy boo demee ci téere nasaara yi ñoom jàngay nañu isa ba mu juddoo def na ko waaye ñoom kam moo leen ko soppiloo Paul Paul moo ñëw leen képp koo xam ni xaraf nga yow génn nga ci diine isa ba ñu ci bari ñoom bàyyi xaraf moo tax ñun ci l'islam ñun mbàkki saa xumee Paul ak l'islam ñun ni Paul di xooji chrétien yi moom Mbacke Sakho mooy Paulug l'islam mooy Paulug l'islam moom kon nag moo tax tey jii ñoom nasaaraa yi bëri tey ñu ngi tourné waat di commencé xaraf ndax xam nañ njëriñ li ñu ngi tourné waat di commencé xaraf ndax xam nañ njëriñ li nga gis jullit boo xam ne loolu ndamal l'islam la yonte bi jàngale wax la ci nekk ci njëriñ muy ndamal l'islam nga julli bu koy saboté ñu nekkoon noonu l'islam démb sax ñu ngi tourné waat tey jii di xaraf nekk ngi xam njëriñ ñi di ci bind ay téere ki ki ne ku ne ci l'islam la nekk de moom di saboté loola nga xam ni kii dellu na ginnaaw dellu ginnaaw goo xam ni foo ko natt jéggi da dayo kon yonte yàlla muhammad lépp sa lépp lu mu wax jamono moo koy dëggal képp ko weddi sa wax ci balit ma la jëm moy da ngay gis ko xamni gëmul yàlla gëmul sax yonte la Muhammad tay wax ci lo xamni lola loola njëriñ la nek lo xamni xam sax yonte bi wax na ci nga xamni ko kon bi wama ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha di waxe bànneex bakkanam lu wax yàlla ko waxyu allahu akbar kon yonte yàlla Muhammad fiyat la ci bépp julit kon yàlla bu ne laxat kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana am ngeen ci yonte bi idole bu rafet idole idole mooy royukaay mooy na mu na mu jëfee ngeen jëfee ni na mu waxee ngeen waxee nii na mu doxalee ngeen doxalee ni mbàkke saaxo ne déedéet yonent yàlla Muhammad ma mbàkke saaxo dafa ko bëgg a seen bi sànni fële mooy njëriñam mooy lant noor daa indi rek teg pare séq ñoom moom len pare nañ ci moom subhanallah moo tax boo xoolee gars yi ànd ak moom amul benn homme bu ñu jox yoon si yàlla Muhammad wallahi azim amul ben amul muhammad lañuy wax amul ben arom buñ ko jox deyna biram jeexna yàlla sant ñu jëfam amul ben jëñ ya topu lañ ko mel ni yéen daal Muhammad dafa mel nekk benn ordinaire bo xamni jëfinam doxalinam ben sans amuko comme ab bojuman be rek nga xamni mom jëfinam non non ci kif kif subhanallah kon yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam lim wax ci walu medicine yo xamni dañu dem ba jimmi jamono jamono dëggal ko bokk na ci yàgg nañ ko wax weñ benn laaf ba microbe beneen laaf bi ànd ci microbe beneen ba bokk na ci yuutu xaj lor wa microbe yi fa nekk te jamono yooyu bu koy wax microscope amul ba ñuy xool mën a gis microbe yi te microbe yooyu appareil rek moo tax nu mën koo gis lan moo ko xamal yoon ci yàlla Muhammad sa sallama biñ ko laajee muus mu ne muus yéen dëkk amul microbe boobu la tey médecine confirmé ne microbe boobu xaj am muus amu ko lan moo xamal yonent yàlla Muhammad ni muus amu ko xaj am na ko te jamono jooju appareil amut ndax kon hadis yi dañ ko sol yonent yàlla Muhammad kon ne ko ko sol moom xam na xay bu subhanallah kon da nga ni ki ko sol yonent yàlla Muhammad xam na xay bu ndax lii xay bu la te yàlla mu ne alimul xaybi fala yusru ala xaybihi ahadan illa man isra min rasuli yàlla mu ne moom yàlla moo xam kumpa amul kenn ku muy compal ci kumpaam bi dara lu koo xam ni gërëm na ko ci yonent kon lii wax yonent yàlla muhammad la jamono confirmé ko moo tax ku weddi hadis yi jamono mooy dëggal hadis ba yow sa wax wax dëgg yàlla moo ko euh, jalu mbalit ba ñooy yem kon boo weddee di jullit nga weddi yonent yàlla Muhammad benn waajoo xam ne gëmul yoon si yàlla Muhammad mësta liir ay njàngaleem mooy def gëstu moom la yàlla programmé mu def gëstam gëstam gëstam ba dëggal waxu yonent yàlla Muhammad te xam nga sax ñu dëggal na ko kon loolu moo la dal ci njongu xaraf loolu moo dal ci lépp li nga weddi ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi kon yonte yàlla Muhammad la yàlla royloo royloo wuñu Mbàkke Saaxo Mbàkke Saaxo li mu bëgg mooy dévier nit ñi seppi yonte ci njàngale diine def ko lantinoor moom nag mu orienté ci boppam moom nan kaay leen ma jàngale ni ñuy jullee def vidéo di jàngale ni ñuy jullee def vidéo di jàngale ni ñuy wooree def vidéo nag li aram na yi dagan na waaye waruñoo dégg yonte yàlla Muhammad mu ñuy leeral alfaan waaye moom la ñuy dégg mu leeral ñu ko te moom yàlla yónni ko ci ñun kon képp ko topp topp sànq nga képp ko mooy sa xel dafa waye di